des projets d'une des plus grandes entreprises agroalimentaires du Sénégal. Je suis enseignant dans les grandes écoles, professeurs associé en logistique CESAC IAM. Je suis expert international en process industriel et je vais à l'Assemblée nationale. Et rien de tout cela ne m'empêche de visiter toutes les semaines mon casier, de récupérer mes documents et de lire toutes les lois. Mm-hmm. je n'attends pas le jour de la convocation. Ah, parce que urgence bi xam nga kañ lay ñëw ci convocation bi c'est-à-dire bu ñu ne urgence la dañ lay convoquer tey nga siéger suba. am na loi yu def un an assemblée nationale ci circuit bi kenn mosu ko oote. deux mais cëru député bi yow mi nga xam ne yow la ndaw yi yónni bul xool li yi di def. defal sa liggéey li la war sa warugar parce que yow ndaw ga def ko toogaloo fa sa bopp ñun bi ñuy dem assemblée nationale union citoyenne buntu bi dañ ne je représente je légifère je contrôle laaj naa ay député ma ne leen est-ce que gis ngeen réponse aux question écrite bi mu mujj dugal une question écrite aussi importante que le règlement mm-hmm. des salaires des ex-agents de Air Afrique kenn ci ñoom gisu ko profil. Hmm? qui doit être député et qui mu ngi ci casier yi. duñ tijji casier yi. mais gis nga. loi bi nee naa la quinze pages. quinze pages quinze pages. oui vraiment benn guddi. ma liir ko comparé ko code ancien code pénal xam li ci nekk yëpp. ma jóge ci procédure d'urgence. vraiment. commission technique. ni ko Pape waxee sànq. ministre ba wax na fa loolu yëpp <laughs> c'est clair ñun encore une fois ay ndaw lañ nee naa leen un document bu duggee entre les mains de représentants du peuple sénégalais mm. il devient public il devient public voilà wax day xam nga sànq nee naa la jox naa ko suma réseau man am na ay journalistes yoo xam ne dañ may o chaque semaine ne ma ban loi moo kii ma scanné ko yónnee leen ko par mail il y professeur des professeurs d'université yu ma ne yónnee ñu ma scanné yónnee leen j'ai de personnes yoo xam ne damay partager ñoom. léegi da nga ma siy dugal. jeex na damay partager ak ñoom moi je suis chimiste de. da nga am approche scientifique. chimiste laa du ma juriste de jànguma droit. approche scientifique. waaw mais dama ne damay dem assemblée nationale ñu may fay un million trois cent jox ma oto comme tu dis ak passeport diplomatique. Mm. du ma koy utiliser nag. <laughs> doo tukki. donc damay def liggéey bi. Mm. def liggéey bi mooy lan. Mm. être à jour sur tes lois. rendre fidèlement compte au peuple sénégalais. parce que li gars yi def barki de man du ma dugg ci ay querelles partisanes d'habitude li gars yi def parce que moi je suis pas dans le militantisme waaw mm. li gars yi def barki dem mooy li nga wax Charles on s'amuse à se faire peur dañuy tiital suñ bopp dañuy tiital suñ bopp loi bi le Sénégal ne peut pas en faire l'impasse ce n'est pas possible parce que boo jëlee boo jëlee la résolution 1373 de 2001 jël la résolution 2178 de 2014 boo ko ratifié da ngay di génne loi bi et c'est le même texte c'est important ma ma ma ma alors que laaj que c'est le même texte. xaaral xaaral c'est international. bien sûr. jëlal code pénal français nee naa la j'ai lu quatre codes pénal. la documentation. quatre codes pénal ci benn guddi. pour vous dire que demagul mu ngi nii j'ai lu la recommandation du Conseil de l'Europe. en 2005. Le code pénal français, il est là. Je, je, je l'ouvre tout de suite. Après, dama la koy jox nga def nii lecture comparée. Hmm. c'est les mêmes textes. amul différence même définition du terrorisme. waaw mais est-ce que loolu du problème. non xaw ma ndax problème la wala du problème dama la bëgg a wax ni aujourd'hui dans la lutte contre le cyber le terrorisme. Hmm. c'est un phénomène transfrontalier. du benn état moo koy xeex. Hmm. C'est plusieurs États qui luttent contre le terrorisme. Mm -hmm. Donc, ma ma ma ma terminer parce que am na y a des trucs importants. très yoo xam ne bugguma bugguma si euh, mimétisme boobu noonu. waaw mais euh, mais bàyyi ko mu terminer très mm. des conventions des Nations Unies. qu'on signe. on doit le transcrire. je parle de texte yi nga xamante ne nga ne. avec pour la France ak pour le Sénégal c'est exactement. le même moom la wax c'est des conventions des Nations Unies. quand la tu signes un traité international. da nga koy dans ton. Euh, corpus juridique. Mm-hmm. Mm-hmm. ni ñu ko bindee. c'est problématique ni ñu ko bindee ci ci ci ci ci traité international. mais yaa ko signé. yaa ko signé kon ko signé c'est pas obligatoire. de le signer. Oh, mais boo ko signé di nga ko transcrire. alors wala wala il veut terminer. lu gàtt la la. lu gàtt la damay damay damay terminer ci urgence mm. l'opportunité de l'urgence mm. parce que urgence député mun na ko laajte comme exécutif mun na ko laajte bu dix député dajee mun nañ demander que ñu examiner un texte en urgence mais le code de l'enfant mu ngi dans le circuit depuis deux ans ban député nga gis mu jóg demander urgence ah <laughs> c'est ce qu'on disait tout à l'heure li leen intéressé mooy le combat politique euh, li leen intéressé mooy le combat politique il faut qu'on arrête sa le Sénégal ne peut pas mënuñ xëy politique compte politique tëdd di nelaw di politique ce n'est pas possible politique du métier jaar-jaar la jaar-jaar la boo defee dix ans ci politique màgget nga ci màgget nga ci yow xam nga ci dara. fi mu nekk nii tu commences à être fatigué. <laughs> alors que tu <laughs>